Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Vous voulez gan nga ci kër gi nag bouton abonnement bi te bul fàtte la cloche de notification bi ne pas bañ tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage. macha euh Dia non pour man euh, man gisuma wax deug yalla guuy gi euma sen deug yalla ah c'est normal na guuy gi dëkk kuko ko lamb ci ji ah parce que mbeur mu ndaw mom non la wara di def sax di laaj mbeur yu magi mom fo tolu parce que lolay sa avantage mais euma sen aussi mi ngi ci buntu bo xani ci xeyna xëy euh, buntu genn la gëna jégué jege ka buntu buntu duggu quoi ah peut-être euma sen mom suy dem bay jëli guy gét xam naa koy jël pour euh, finir en beauté maanaam euh, comme li ko dese ci carrière am bëreetul te booy yi màgg nañu et tout ça mu xaar tante foofu chance am ba xam dana fa am dara su ko daanee baax na su ko daanul it mu am fa xaalis bu bare comme ni ko tafaagee defe woon ci digganteem ak euh, Balla Gaye ak Lac de jël ñaari avance ak affaire yooyu man foofu mën naa fa gis quoi mais su foo su su fekkente ne Eumeu Sène am na ambition nekkaat roi des arènes ci làmb jii moom man duma ko conseil mu jël guuy gi parce que aussi guuy gi du ko apporter dara waaw bu dee walu lamb rek damay gis ne guuy gi du apporter dara ma seen te guuy gi man na rampe guuy gi am ñu ko ñu mu mën a la guuy gi garga mboose lamb la de waaw amul dara loo xam ne si gi mën na ko ki ci ci ci ci ci garga mboose ah parce que même bu dul dara adversaire boole na leen booy ñaa boole na leen booy ñaa daan na daan na guuy gi te xam bu nu aussi da nga gis loolu waaw en tout cas làmb yi daal actuellement moment ah, secteur yëpp dee nañu waaye làmb ji moo ciy gën a métti la de parce que xëy na ah, am na ci yenn booy yoo xam ne si moom bu ko defee liggéey ba boo ñu dem ah, bàyyi moom waaw parce que année blanche yi dana bëri te dana gën a takkarnaasi làmb yu mag yet yaakaar naa dana gën a wàññeeku quoi parce que moonin bi ci gars yi di teg pour tëgg ko non gars yi gëmatuma ñu gaaw ko cee def quoi waaw kon nag

parce que yaa ngi doon dégg ay mbër mi fay nañ ko 80 millions fay nañ ko 100 millions mais dama gëmatul ni ña doon fay 80 millions ak yooyu daana ñëw di ko fayati ci moment bi ci làmb yi nii te làmb moom wax dëgg jar na ko yin ko doon fay yëpp jar na ko mais est-ce que daan ko ci defati ak situation bi nii mu demee nii ah kon làmb dafa dafa laaj judduwaat judduwaat champion yi nii ci kaw na ñu bàyyi xel loolu aussi ñu wàccee seen bopp pour pour kii parce que même bi coronavirus bi amul dara xewul làmb ngi woon ci problème waxuma la ak situation yi ñu toll nii dana jafe de du yomb de. waaw macha allah gis nga problème bi mooy ñoom rek ñoo ciy perte ñoom ñuy entraîner di gën a màgg di gën a màggat temps du leen xaar te bëriwuñu te ñu waroon ci mën a bëre xataa bu doon kenn ku ne di bëre trente millions sax am na ñoo xam ne si million boobu noonu problème la ci ñoom waaw parce que comme liggéey la comme liggéey la ñoom ñoo ko wax mbërë dama bàyyi lépp pour sama liggéey te actuellement nii.

xam nga bala Boy Niang dafa doon combat bo xamni combat ñaari mbaru ginaaw la bobu promoteur yi la gëna xamni ñaari mbaru ginaaw mëno ko tegg te def defo ci xaaliss parce que ñom buñ la naxul tay bu jël mbaru mbaru ginaaw ak mbaru amul ginaaw mbaru ginaaw bi do ko jël mu ko ko lu weex tal mu des préparer combat am parce que lamb li ngay daan mo ne la nek mara masalah allah liy gagné làmb ci poos la nek te Balla eh. ak boña dañu doon mbeuru ginaaw yo xam victoire jaral na len lu nek motax pour mbeur tëgg ko pour promoteur tëgg ko du yomb non non mais combat bobu su munta nekit su munta nek boña mi ndax pourquoi boña tafatine pourquoi boña kiri man waaw booy mot ja yow di ngay xool li la arrangé rek nga koy wax waaye koo xam ne géej na am victoire xam nga Gris Bordeaux di nga ne moom géej na géej na am victoire du loolu nga wax léegi nga nga koy proposé guy gi guy gi ñëw daan ko ak ni mu géejee am victoire hmm? loolu loolu kese kese rek euh, euh, mën na yàq làmbam quoi. waaw loolu nag kese rek mën na faa jar sax bàyyi bëre mooy loolu xanaa mu commencé di wàcc noonu ci suuf di gën a may xale yi noonu sens quoi waaw mooy loolu te moom moom moom fi mu nekk noonu da daa liggéey dafa liggéey ba ak si foofu dafa liggéey ba ak foofu kon am na yoo xam ne bu ci duggee tamit te arrangé ko moom du ko def waaw. yow lii la arrangé rek ngay wax waaw parce que moom géej am géej na am victoire rek kon na wàcc daal na na wàcc rek jël xale yi après xale yi daan ko mu jaar foofu daan mu jaar foofu rek bàyyi bëre yow loolu nga bëgg quoi loolu nga bëgg. non promoteur yu xaw yi xajam yu mel ni genre garçon yi ñoo fi manqué quoi mais yow boo ko buñ ko amoon wallaay guy geeg rëg-rëg garga ñoom ñëpp daan daanu bëre waaw parce que kalaaf leen tëggal. xoola Modou Lo Papa Sow ba nuy bëre ah am na ñu xalaatoon mën naa ne wala mënu ne wala affaire yooyu ah mais maanaam promoteur bu saay-saay boo xam ne si stratégie am lay teg ak xaalisam bu bëre ñoo fekk mbër yi fay leen lu leen jaral ñu ñu boole leen yooyu moo doon suqali làmb te yooyu amatul moo naam genre garçon nga xam ne psychologiquement dañu taxaw financièrement dañu taxaw su ko defee dañuy mën a dëkk dañuy mën a téyewaat làmb ji comme li nga wax nag moo ci ne ñaari combat yi moom day suqali làmb dana suqali làmb dana am fu mu yóbbu làmb muy Balla Gaye boo Niang Ama Baldé Modou Lo kooku moom mën na làmb mën na fa jaarewaat dekki mais genre combat yooyu kan moo leen di tëgg ak nan lañ leen di tëggee ci jamono jii foofu moom il faut ñu bàyyi fa xel bu baax a baax a baax waaw aussi ñoom la ñuy yaakaar la ñuy laaj ñu fay leen ko est-ce que promoteur dina ko yëkkati ci moment yi aussi di ko defaat ci di ko defaat ci ñoom non man gëwuma loolu. waaw ja am na solo de ja nan commentaire waay nan commentaire nan mu neex. parce que yéen ñëpp ay làmbolog ngeen waaw yeen ñi fi nekk ni waaw gaay yi daw nonu ma dugg rek ñu daw ma su siise gi ah gaay yoy nonu nanu ñewat mais amna solo de ah il faut ñuy commentaire quoi bu ko defé xel yeeg xalaat yi di genn bu ko defee ñun ñep ñu jariñu ci parce que xeyna maîtriser wuñu sax ni wax 100 amna ñu man bok maîtriser wu mako parce que amna ñu mako gëna maîtriser bu baaxa baax ci bir biir bi mais aussi damay jël ci seen xalaat di ci wax ngir di jël ci sama xalaat di ci wax lool rek mooy analyse ah. li ma leebalee daal mooy je suis d' accord affiche bi nga xam ne moom la fi Diop le maire wax kooku moom dama koy nangul bu baax a baax parce que man lu si bëri heure bu ma bëggee waxee foofu ku mel ni ku mel ni yow ak kii ñëw daal di sànni wax sànni sa sa kàddu yow da nga faral gi kërëb kërëb nangam nangam ma noppi mbir mi nag du foofu mbir mi dañuy commentaire sa bàyyi maanaam suivre nit ki man ñew lo wax mën la li nga wax tegoo ko fenn da nga faral sa mbeur fi ku fi nek da nga faral sa mbeur mais buñ dé def lool rek commentaire du neex quoi. wa xam nga ma sha allah il faut il faut ñuy commentaire parce que groupe bo ngeen xolé fan yi ni li kay euh, xeyna euh, manam amna lo xon doxul groupe quoi moy ku ne nopi rek di xaar nonu ñuy commentaire ku ci nek li sa morom di wax nga ci commentaire après du té ki faral mudlo faral mudlo ki faral Balla faral ko ki faral tafati et cetera et cetera mais dama japp ni groupe bi mom likoy gëna doxal moy commentaire yi manam ñuy waxtaan quoi ki di wax mais man man na baña and ci li ngay wax te duma ma dara mais ma indi sama argument défendre ko ma indi sama argument défendre ko man na ñëw it beneen face manam ngay wax ma lay mbalak pour rien que yow li ci sa bop ma so ma ma ma génnee ko manam nga ñëw indi say mbeur affaire yoyu tek man la non non loolu amul bagn rien que pour yow damay gis Cheikh Sarr des fois day mel ne luy joué boobu noonu même jéey maa ngi koy nuyoo passage day mel ne luy joué rôle boobu noonu des fois ngay ñëw mu lànk loo xam ne si xam na ni carrément yow li ngay wax moo am mais dana ko bañ à cause de bëgg yow nga gën gën a développé waaw yooyu day am quoi te yooyu day neexal commentaire quoi. Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV. numéro Sénégal 4 TV il est 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Vous vous gan nga ci kër gi sur le bouton abonnement vous teg bul fàtte la cloche de notification bi tardé vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage.